Toubacouta ndaysaan ñu ngi ci compétition bi booy Faye Toubacouta ndaysaan combat yi mu ngi commencé compliqué ci ñi ñu jàpp ni ñooy favori Mamadi Ndiaye ñàkk na Libidor a ngi ci digg géew bi Doudou Sané mu ngi ci digg géew bi Boy Faye Toubacouta Emine François Gomis mu ngi ci géew bi ndaysaan combat yaa ngi noonu booy Faye Toubacouta Boy Faye Toubacouta Boy Faye Toubacouta ndaysaan booy fay tubaakuta Doudou Sané Libidor daan na ndaysaan Libidor daan na Toubacouta daw na jëli Boy Faye Toubacouta daw na jëli ko takk bi baax na Boy Faye Toubacouta rëpp nañ yegg na suuf Boy Faye ndaysaan booy fay Toubacouta booy fay daw na jëli Toubacouta sol na caxabal wala mbot luy xaw tegal siège luy xaw booy fay Toubacouta génn nañ saaku yi génn nañ saaku yi booy fay Toubacouta ndaysaan Toubacouta saay saay la ndaysaan Doudou Sané combat bi yàgg na ci moom xale bi bi bëreel ndaanaan la Boy Faye Toubacouta Toubacouta Boy Faye Toubacouta Boy Faye Toubacouta Boy Faye Boy Faye Toubacouta Boy Faye takk na ko takk bi baax na Toubacouta nga koy mbot rëcc na ndaanaan la mbot na ko Boy Faye daan na daan na ko Boy daan na ko mu ngi doon tenter bu garaaw Franc arbitre bi na ndaysaan mbokk yi Franc moo leen woon ginnaaw mu ngi noonu moom it troisième combat am ci compétition bi ndaysaan ndaysaan Franc daw na jëli bi bañ na ndaysaan xale bi daw na jëli ko Franc bañ na ñu ngay bëree ndeysaan ñu ngay bëree ndeysaan mu ngi noonu Franc mu ngay day ndeysaan daw na jëli ko mot nañ ko Franc jàpp na wër ndombo Franc wër ndombo dina ko daan da koy daan daan na ko Franc daan na Franc daan na mbokk yi mu ngi bëre bu yàgg mu doon mu ngi noonu. waaye Kees mu ngi noonu. combat bi yàgg na. arbitre bi àtte na lu xew Doudou Sané am na ndam papay général ndeysaan sa liggéey seex Cheikh Bamba général saa yu làmb tollee fii dinaa ñëw laaj la nga wax ma comme ni ma ko daan waxee tey bis bi lan nga yëg ban yëg-yëg nga am ci journée. jërëjëf sant yàlla bu wér di la sant bu baax. yëg si làmb bi amateur rek seetaan si rek keneen indi ma fi dama ñëw pour seetaan si làmb bi. ni ma ko doon defalee favori actuellement nii làmb ji ci ñan nga jàpp ni ci seeni loxo lay mujj tey. favori làmb ji si ñeent lay génneewaat rek. ñeent. waaw mais dina am jël bu du leer fii na si kanam tuuti. dina am dina am jël bu du leer. waa si ponkal diggante du Sané Serigne Ndiaye. François Gomis ak diggante Libidor ci ñeent ñooñu dina wër foofu. dina am jël boo xam ne dina fi am jaxasoo léegi tout de suite mm, ak Boy Faye ñoom cinq ñooñu ñoom ñooy jaxaso mu ngi ci actuellement mu ngi ci loxoy ñaata mbër. nii nii nii nii. ñaar. Mm-hmm. ci diggante Serigne Ndiaye ak Franc. Serigne Ndiaye ak Franc. ay daal ñu bari génn nañ tey gis naa Karamba gis naa Papis général gars yëpp yëngu nañ mais da ngaa toog ci sa ruq rek nu wàccoo defoo dara lan la. jot ak ñi bokkuñu. ak Serigne bokkul. ma ne Saaraan ak Serigne bokkul. ñun ñooy Saaraan. ñee nga wax pour nga ne da nga mag ñan wàcc ñu. gisuma la ko wàcc ñan ñooy saaraan ma man ak ñoom ñu benn ñoom indiwuñu ma si làmb bi sax yàgg nga maa gis làmb fi damaa ñëw seetaan si rek amateur la. wàccee ku ne di def démonstration Cheikh Bamba Diagne du wàcc def. kon ma ñàkk personnalité nag jii bi may def démonstration mooy bi nga ma fekkee fii si xoy bi saltige yëpp taxaw ma xam ne ñii mun nañoo nuur mun nañoo naaw. ma def lu ñu mënta def ba nga jël paie. barki dem bu fi Esat Iba Mar Diop mais ñii taxu ma jóg bokkul sax maa ñoom du benn mënul nekk benn impossible. xam-xam lu ma dama xam. ñii nag dañuy jéem takk bokkul. fii su ma fi wàccee kon ma kon ma xeeb sama bopp man dama civilisé. ma ne ko ko de def nga sa garaam bu bu sa xaalis di maye rek. waaw non du loolu sax. man daa amagu ma xaru tabaski. xaru tabaski di nga am yàlla baax na. jili. <laughs> non yow nag ma mer ñoom nga ne ma wàcc dem dama non boo jili yow bañ nga ma de. des fois nga jékki-jékki rek tànk da ngay tànk. waaw su may tànk sama wàllu bopp. mun naa dugg fii léegi yëngal tànk. mais pour ñi non jamais tous les garages la mënul nekk jaajëf amul ragal incha allah ñoom nag ay jàmbaar lañ jaajëf. jaajëf kaay. na Boy Faye Mamady Ndiaye. Boy Faye moo la féete ndijoor Mamady Ndiaye féete la càmmoñ mbokk yi ñu ak xale ba ak ma Maroon bu Doudou Sané Pape Maroon Boy Maroon Boy bu Pikine bu Pikine bu Pire bu Pikine bu Pikine ah man daa bi ma Pape Maroon ma ne sax xam-xam Boy Maroon ak Mamadou Ndiaye ñu ngi ci compétition bi mbokk yi Boy Faye Mamadou Ndiaye ndaysaan Pape Maron bu Pikine Pape Maron bu Pikine ndaysaan Pape Maron Ada <laughs> Fass daan na Coly Faye loolu de la ñu wax laa ilaaha illallaah la ma dégg nii doomu Fass bi daan na Coly Faye Ada Fass ne kon kenn mënatu koo bañ ci làmb déedéet laa ilaaha illallaah ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu Boy Faye Boy Faye ngi noonu ndaysaan Boy Faye ndaysaan ñu ngi noonu Boy Faye ndaysaan Boy Faye Doudou Sané Boy Faye ndaysaan mu ngi noonu diggante moom ak Mamadi Ndiaye Doudou Sané Boy Maroon bu Pikine Doudou Sané Boy Maroon bu Pikine Doudou Boy Faye daw na jëli Mamady Ndiaye Mamady Ndiaye bañ na dinañ bëre ñoom ñaar Boy Faye Mamady Ndiaye Boy Maroon bu Pikine ak Doudou Sané Boy Faye Mamady Ndiaye Boy Faye Mamady Ndiaye Boy Faye may ñu ñu jël combat bi ah Boy Faye Mamadou jël na tànk dur Boy Faye daan na ko Mamadou Ndiaye daan na Boy Faye Mamadou Ndiaye daan na daan na Boy Faye Serigne Ndiaye deux Libidor Serigne Ndiaye deux Libidor Serigne daan na daan na ko daan na Serigne Ndiaye 2 daan na Libidor Serigne Ndiaye 2 daan na Libidor Libidor bañ na daan na ko Serigne Ndiaye Libidor ndaysaan booy maroon bu Pikine ak Doudou Sané Serigne Ndiaye deux qualifié na booy maroon bu Pikine ak Doudou Sané Serigne Ndiaye deux daan na ndaysaan booy maroon ak Doudou Sané Boy Maron ak Doudou Sané Boy Maron Doudou Sané sa digga caajaay Cheikh Bamba général waxoon na ko neewoon na dina am ci combat boo xamante ni ci combat yi dina takk suuf <laughs> lam ma gis naa nee na du génn ci combat yi boo xamante day takk suuf waaye baatinu neen ak bëti neen duñu benn lamb saa su ne yàlla may doomu aadama lu mu gis loo xamante ni keneen gisu ko am na bu ci takk suuf la ma waxoon gis naa ko saltige caajaay Cheikh Bamba général tax da wax ci micro bi ñëpp di dégg mu tudd ponkali ne ci ñoom ñooñu la combat ba takk suuf ba feeñ na polémique bi bari na Franc mu ngi noonu ndeysaan Franc ngi noonu ndeysaan Franc daw na jëli Franc daw na jëli ko jàppante nañ jàppante nañ Franc fàq na ko booy bi bañ na Franc fàq na sol na ko ña ngay bëre Franc na plaqué na ko mbot na yegg nañ suuf yegg nañ suuf bañ na Franc jàpp na Franc ak Ndiol Sana Franc takk na ko Sana bañ na Ndiol Sana ak Franc Ndiol Sana ak Franc Ndiol koy buux génn na arbitre bi àtte na Doudou Sané Boy Maroon bu Pikine Doudou Sané daw na jëli ko ña ngay bëre Boy Maroon Doudou Sané Doudou Sané Boy Maroon Doudou Sané Boy Maroon ndeysaan Sana ak Franc Doudou Sané Boy Maroon Franc ak Sana Sana ak Franc ndeysaan ak Franc Ndeysaan ñu ngi noonu Sana ak ñu ngi Ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi ba tey daw na bu du du Sané ak Boy Maroon bu Pikine Boy Maroon mu ngi koy mu ngi koy di ko bëgg a batt bara mu naar Boy Maroon Doudou Sané Doudou Sané plaqué na ko Boy Maroon bañ na Boy Maroon Doudou Sané Franc ak Sada ndeysaan Franc ak Ndiol Sana Ndiol Sana bu Zawal ak Franc Ndiol Sana bu Franc ak Franc yegg nañ suuf Franc takk na Ndiol Sana bañ na Franc jëli na ko plaqué daan na ko daan na waay Franc daan na Ndiol Sana jël bu rëy daan na ndeysaan ñu ngi noonu Ndeysaan arbitre baa ngi noonu. Franc daan na Ndiol Sana. Doudou Sané ak Boy Maroon bu Pikine. ak Doudou Sané. ñu ngi ci compétition Boy Maroon ak Doudou Sané. Ndaysaan Ndaysaan Karamba abisida 1 million ak Soxna Mame Diarra Dieng Ndaysaan Kara Karamba mi jar naa tuddee drapeau. jar naa tuddee drapeau parce que drapeau nag ku ñu ko tuddee tamit dañ si war a jàpp. parce que ki la ki fi bàyyi ñëpp. ñëw tuddee la lambam. am na ci yow yaakaar. yaakaar nag dafa fort. ba pare ñëw na. waaw ba pare ñëw na boppam liggéey ci liggéeyam liggéey ci liggéeyam yëngal bés bi animé bés bi. maye xaalis maye xaalis macha allah. lii soxla naa ko ci pare. macha Karamba. ndeysaan ko ci macha allah Karamba ay ca Doudou Sané. dégg ngeen ko ñu ngi noonu ci Doudou Sané ak Boy Maron bu Pikine ñu ngi noonu ci combat bi Doudou Sané Boy Maroon bu Pikine daw na ndaysaan mu koy xëcc ma ngay plaqué Doudou Sané ndaysaan Ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngi noonu Ndeysaan ndeysaan Fara nga yëngal Fara daw na nga yëngu bàkk na daw ba ci mu ñëw taxaw ndeysaan ñëw na ba ci Serigne Ndiaye de joxañ ko ne ko Gabriel Sala! càmmoñ moom Babou Babou Kaling arbitre bi sifflé na mbokk yi Kaling ma ngay lewaatoo ndeysaan Kaling ma nga daw na jëli ko bañ na ndeysaan baaboo ngi noonu Franc mu ngay jaayu ndeysaan daw na jëli ko caxabal nañ ko Babou Kaling caxabal caxabal caxabal day bañ Babou Kaling daanaan la ma bëre ña bëre ñu ngi noonu ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu compétition baa ngi noonu Mamady Ndiaye Emine François Gomis ndaysaan Mamady Ndiaye Emine François Gomis Serigne Ndiaye Doudou Sané ndaysaan loolu combat boobu du jeex mukk feex ñu ngi si tournoi du jeex daan nañ ko Babou Kaling ah Babou Kaling kenn du moom waaye boo daan nañ ko nañ xel doxaar la boo xam ne saa bu ñëwee duñ ko bàyyi bu demi finaalu la tey finaalu ndaanaan la mais ñaar muy daan Babou Kalim Doudou Sané Serigne Ndiaye tay balaa maa gëm ne lamb ci day yegg ñoom ñaar dañoo yëg loxo kenn jàpp bi mu jàppoon ci karaw gi bii passé dina ko jàppal bu ko jàppee Doudou da koy dóor te bu ko dóoree dañuy disqualifier Doudou te buñ taabu bi tay saan leer na laaj de lu leer na la waxaatal waxaatal wax ji ngeen bali la Serigne Ndiaye bu jàppaatee garawu duudu. duudu da koy dóor. bu ko duudu dóoree. dañ koy disqualifié. buñ disqualifié duudu. taabal bi lay jëm yàq ko. yàq taabal. Malick Diop ak ci door ak yëpp wuti fuñ jëm. keroog def na ko. gars yi jàpp ko mu arrangé ko. tey buñ ko ko defee taabal bi la jëm. waaye Mamady Ndiaye at Ibou François Gomis est-ce que xam nga ne Mamady musuma seetaan fu mu daane Franc. ko seetaan. déedéet. mais seetaan nga fu ñu ba taay. seetaan naa cinq xaw ma six. ah kon tay sa Mamady nag ama dénk la ñaar saa bu ñëwee toog si kaw tur bi demi-finale day finale. daa mel ni mu ngi quart waaw. waaw kon nañ ko bàyyi ay ca ñu ngi noonu mbokk yi Ndeysaan ñu ngi noonu

España. dox ci diggante Tony Junior ak Modou Jam Terry Tony Junior Modou Jam Terry ndaysaan Tony Junior Modou Jam Terry Tony Junior Modou Jam Terry daw nañ jàppante jàppante na ñoom ñaar Tony Junior Modou Jam Terry Tony Junior Modou Jam Terry Tony Junior Modou Jam Terry Tony Junior Modou Jam Téeri ñu ngi ci compétition bi Tony Junior Modou Jam Téeri Modou Jam Téeri fi mu jàpp baax na Modou fi mu jàpp baax na Tony ma ngay bañ Tony ma ngay bañ Tony ndaanaan la ci làmb champion la ci làmb waaye Modou fi mu jàpp sori na baax na Modou tël na ko Tony bañ na day bañ Modou dugal bopp bi te Modou day dugal bopp bi ba tey Tony Junior Modou jam teeri Tony Junior jam teeri ña ngay jàppante Tony Junior Modou jam teeri Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior jàppante nañu Tony koy jéem a wàccee Modou bañ na Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior lan moo nar a xew Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Diam Terry Tony Junior mbër may ñu daw na jëli ko jàppante ne yegg nañu suuf wala déet to dañ koy faqat Modou bañ na da ko a wër daan na ko Tony Junior daan na Modou jam téeri ndaanaan la ci bëre waka la Tony pànk la Tony pangalang la daa war a bëri ci bëre dóor daal daan na Modou jam téeri Tony daan na ko jël bu daan na ko jël bu mbokk yi arbitre bi sifflé na Franc moo la wan ginnaaw Mamady Ndiaye lool ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar dara xewagul Franc Mamady ñu ngi leewaatoo Franc Mamady Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye ñu ngi demee wet Franc Mamady Ndiaye ay waay may leen ñu balaa booy balaa Serigne Ndiaye di bëreeg Doudou Sané ci demi-finale yi Franc Mamady Ndiaye ngi jàppante ba tey Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye dara xewagul Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye ndaysaan arbitre bi ngi waaj a beneen combat dox ci diggante Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2 Franc Mamady Ndiaye arbitre bi atte na Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 Doudou daw na jëli ko Serigne bañ na tay fu ñuy mujj ñoom ñaar Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané daw na teq Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye bañ na ngàdd na ko Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne njaay Doudou Sané ngàdd na ko Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Mamadi Ndiaye ak Franc Doudou Sané teq na ko Doudou Sané Serigne seeni bu barjee ngi noonu di yëngal ndeysaan Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye saane Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané saane Ndiaye Doudou Sané ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ngàdd na ko wax naa leen ko ngàdd yi ba tey ay dóor la ndaysaan arbi bi sifle na Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané ci wàllu bee yaa ngi am Franc ak Mamadi Ndiaye ndaysaan mbokk yi ñu ngi noonu ci combat bi ba tey Mamadi Ndiaye ak Franc Serigne Ndiaye ak Doudou Sané Ibrahima Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 ñu ngi noonu ñoom ñaar ba tey dara xewagul daw na jëli ko Doudou Sané jëli na ko Doudou Sané jëli na ko Doudou Sané Serigne Ndiaye génn nañ saako yi génn nañ saako yi Mamadou Ndiaye ak bo ak ak Franc nañ saako yi plateau du yomb arbitre bi sifflé na Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané Franc ak Mamadi Ndiaye ñu ngi ci compétition ba tey ndeysaan daw na jëli ko ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngi noonu ñu ngi noonu ci compétition bi ñoom ñaar seen combat mënul yomb. Ndeysaan ñu ngi noonu Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Mamady Ndiaye Mamady Ndiaye ak Franc am na ndam am na ndam am na ndam ci kaw Mamady Ndiaye wala déet Doudou saane daw na jëli ko wala déet daa mel ni arbitre bi joxe gu ndam de dañoo mitaa ñoom ñaar Doudou Sané Serigne Ndiaye combat bu nar a metti Doudou Sané Serigne Ndiaye ñu ngay bëre ñoom ñaar Doudou Sané Serigne Ndiaye yombul ci ñoom ñaar ñëpp demi bu xaw a compliqué Doudou Sané daw na Serigne jël na ko Doudou Sané bañ na Doudou Sané tekk na ko Doudou Sané tekk na Serigne Ndiaye Doudou Sané tekk na ko Serigne ak Doudou Sané Mamady Ndiaye ak Franc arbitre bi sifflé waat na ndaysaan ñu ngi noonu Serigne Ndiaye de Doudou Sané ndaysaan arbitre baa ngi noonu sifflé na Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané Mamadi noonu ci compétition bi Franc na jëli Mamadi Mamadi bañ na Franc Mamadi Ndiaye Franc Mamady Ndiaye Franc Mamady Ndiaye mu ngi noonu Franc Mamadou Ndiaye Franc Mamadou Ndiaye combat bi yàgg na Franc Mamadou Franc Mamady Ndiaye arbitre bi nga waaje sifflé waat Doudou Sané Serigne Ndiaye bi sifflé na Serigne Ndiaye de Doudou Sané Serigne Ndiaye daw na jëli ko Doudou Sané jëli na ko jàppante nañu Serigne Ndiaye bal daa bëgg a jeexal làmb ji wala déet Serigne Ndiaye de Doudou tel na ko nañ suuf Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye koy plaqué Doudou Sané bañ na ñu koy bëre ñoom ñaar combat bu rëy arbitre bi atte na arbitre bi atte na avertissement Doudou Sané ndeysaan album bi sifle na il faut ngeen nekk ay sportif xam ni Doudou Sané ak Serigne Ndiaye lamb la ngeen génn ci supporters yi bëre simple xamee wuñ leen lii ay sànniwaate butéel ay sànni ndox loolu kenn xamu ko ci bëre simple Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané ak Mamady Ndiaye ñu ngi ci combat bi ba tey Franc ak Doudou Sané Franc ak Doudou Sané Franc Mamady Ndiaye Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2. Doudou ak Serigne Ndiaye 2. Doudou Sané Serigne Ndiaye jàppante nañ ba tey. Doudou Sané Serigne Ndiaye nañ ba tey. Franc Franc Mamady Franc Mamady Franc Mamady Ndiaye temps jeex na dox ci diggante Franc ak Mamady Serigne Ndiaye de Doudou Sané Franc am na ndam ci kaw Mamady Ndiaye Doudou Sané Ndeysaan Doudou Sané Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2 jàppante nañu Doudou saane Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 diggante Doudou ak Serigne ku daan Franc ngay am final faqan na ko war na ko ndomba Doudou Sané war na génne na génne na ko nee na ko kaay nee bi Doudou bàyyi sengoor bi Doudou Sané Serigne Ndiaye bàyyi sangoor bi il faut que ngeen xam ni làmb la Doudou Sané Serigne Ndiaye benn sens sànnante gàllaajeeg sànnante xeer yi amul njariñ ci làmb amul benn sens Franc Franc yëngu na Franc ma ngay yëngu Franc ma ngay yëngu ndeysaan daal Doudou <laughs> Sané jaaxal cey làmb daw na dëkki Franc bàyyi na Serigne Ndiaye moom doon bëreel dem ci Franc làmb ji yëngu na ndeysaan digg géew bi Serigne Ndiaye de Doudou ñu ngi noonu ci compétition bi Doudou saane Serigne Ndiaye arbitre bi ngi waxaat ak ñoom mbokki bu leen fàtte Doudou Sané am na deux avertissement bu ko Serigne Ndiaye buuxee mu génn day ñàkk làmbam bàyyi leen ci xel arbitre bi sifle na Serigne Ndiaye 2 féete la càmmuñ Doudou Sané féete la ndijoor ñu ngi waat fii ci stade Diop Iba Mar Doudou Sané daw na jëli ko Serigne Ndiaye da koo séen tëru mu daw rocceekuwaat génnaat daw na ngàdd ko dinañu bëgg a jàppante dinañ bëre ñoom ñaar Doudou saane Serigne Ndiaye Doudou saane Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou saane Serigne ñu ngi ci combat bi ba tey jàppante nañ ñaari mbëri jàppante nañu Serigne Doudou Sané da bëgg a tël Serigne Ndiaye bañ na lu nar a xew Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané Doudou Sané fàqan ko Serigne daw génn daw jëliwaat ko Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané ñoom ñaar Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye de Doudou Sané Doudou Sané dóor na ko tànk Serigne bi sifflé na Serigne Ndiaye daw na jëli Doudou Sané sol na mu ngi ko bëgg a fàqat daa bëgg a jeexal lamb ji Serigne Ndiaye daa bëgg ji Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané mu koy génnee da koy génnee bu génnee mu ñàkk génnee na ko Serigne Ndiaye génnee na Doudou Sané Serigne Ndiaye génnee na ko lan fan la ñuy mujj fu ñuy mujj Doudou Sané ak arbitre bi ndeysaan kott na arbitre bi jooy na arbitre bi jooy moom Doudou Sané Doudou Sané kott na arbitre jooy ndeysaan Doudou Sané kott na arbitre jooy Doudou jooy ma nga kott arbitre bi ma ngay jooy kott na arbitre bi ma ngay jooy ndaysaan Serigne Ndiaye 2 amaat na ndam ci kaw Doudou Sané Doudou Sané kott na arbitre bi jooy ma ngay jooy ma ngay jooy jooy metti moom Doudou Sané ma ngay jooy jooy yu metti ndaysaan ma jooy jooy yu metti ma ngay jooy ndaysaan Doudou Sané sër Ndiaye 2 ak Franc ñoo finalu final raw gàddu bi arbitre bi sifflé na ko Ngor Mar sek ak usmaan ngoor Ndiaye ngoor Mar Seck moo la féetee càmmoñ ngoor Ngor Ndiaye moo la féetee ndijoor ñu ngi noonu ci finalu raw gàddu gi Ngor Mar Seck ak Ousmane Ngor Ndiaye ndaysaan ngoor Mar Seck moo la féete càmmoñ Ousmane Ngor Ndiaye moo la féete ndijoor wan ginnaaw Ngor Mar Seck Ousmane Ngor Ndiaye Ngor Mar Seck Ousmane Ngor Ndiaye Mar Seck Ousmane Ngor Ndiaye ñu ngi noonu nday ci finalu raw gàddu gi daw na plaqué ko ndaysaan Ngor Maar Seck Ousmane Ngor Ndiaye génne na ko saaku yi avertissement Ngor Maar Seck arbitre bi sifflé waat na arbitre bi na ñu ngi lewaatoo ñu ngi lewaatoo Ngor Maar ak Ousmane Ngor Ndiaye plaqué na ko Ousmane Ngor Ndiaye yëkkati na ko dóor na ko ci daan na ko Ousmane Ngor Ndiaye daan na ko daan na ko may nañ ko xaalis. affiche baa ngi noonu Mamou Zidane ak Tony Junior mbokk yi Tony moo la féete càmmoñ Mamou Zidane moo ndijoor arbitre bi sifflé na ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Mamou Zidane Tony Junior Mamou Zidane Tony Junior Mamou Zidane Tony Junior ña ngay lewaatoo Mamou Zidane Tony Junior Mamou Zidane Tony Junior Mamou Zidane Tony Junior le Tony Mamou Zidane daw na jëli Tony Tony tëru na ko jàppante nañ ak Tony Junior jàppante nañu Mamou Zidane Tony Junior Mamou Zidane Tony Junior Ndeysaan Mamou Ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi Tony ngemb bu orange Mamou Zidane tem ngemb bu xonq Mamou Zidane Tony Junior Tony sëq na ci geño Mamou Zidane daa bëgg Tony bàyyi Mamou Zidane Tony Junior Sony jàpp na fi mu jàpp baax na fi mu jàpp na da koy tegal seize Mamou Zidane day bañ wala déet mbot mbot mbot action ci kaw action continuer nañu Mamou Zidane mbot na Tony Tony mbaar na ko mbaar na ko daan na ko Tony daan na Mamou Zidane Tony daan na ko Tony daan na Tony daan

sunu lamb compétition bi ay ndaanaan ñoo fi nekkoon ay ndaanaan di compétir ay ndaanaan di toog ba ñaari ndaanaan finalu muy Emine François Gomis ak Serigne Ndiaye 2 bu Faas mbokk yi Franc féete ndijoor Serigne Ndiaye moo la féete càmmoñ arbitre bi sifle na mbokk yi Serigne daw na jëli ko Franc Serigne Ndiaye Serigne nañu tëru na ko bañ na bañ na lu xew Serigne Ndiaye jàpp na Franc yegg nañ suuf jugaat nañ ñu ngay wuree ci bëre laa ilaaha illallaah ñu ngay wuree ñu ngay wuree Franc Serigne Ndiaye ñu ngay wuree ñaar laa ilaaha illallaah laa <laughs> eh, eh, ilaaha waay Serigne Ndiaye daan na Franc jël bu rëy laa ilaha illallah da koo xar yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf eh. waay Serigne Ndiaye waay eh. Ibrahima kaay kaay baal ma baal ma façon bëre bi façon bëre bi façon bëre bi sant yàlla baax sant yàlla bu baax danga am sëriñ am am fra ndeysaan may leen gars yi dal leen rek gars Franc ñëw na ndeysaan may lañu ñu jël image bi ndeysaan ndeysaan Franc ñëw na Franc sportif ba ndeysaan dem na def leen ko ndànk may leen ma may leen ma dimbali leen ma. Serigne Ndiaye. Ibrahima taxawal la ci mikaayu Serigne Ndiaye bi. kenn mënul téye sa bopp ndax bëre bi Serigne Ndiaye bi mu bëre ba daan amateur yi kenn jugut ndax façon bi bëre bi Serigne indi ñu bari xamuñu ko woon ci moom mën naa wax li mu bëree ni mu bëreeg Serigne Franc Serigne Ndiaye nuyu naa la Serigne Ndiaye façon bëre bi nga bëreeg Franc ban bëre nga bëreeg Franc. soo ay mbër la Franc champion sportif la je respecte beaucoup xam nga champion la dimanche passé la bëre tey bu ñu compétir champion la wax dëgg yàlla mënu ma wax nag suñu borom moo dimbali rek mënu ma kenn sant yàlla bu baax sant samay entraîneur ñu ngi entraîné waa ngi di Fass sama mbaa tawaage mu ngi France yaakaar dafa jàmm sama mooy jaraaf xam nga Persek xam nga arbitre daf na bëre rek. arbitre daf na nga agressé Franc. dañ la koy yóbbee wala ma sax parce que maa mu ma dara dama teg ay loxo ñu may entraîné ma tàggat man ma sant gërëm leen. da nga ko naan Kante Boña ma koy sant bu baax a baax a baax Kante ma koy sant bu baax di gërëm xam nga ah, xam ma koy sant bu baax di ko ñaanal jàmm ak salaam xam nga Guèye waa ngi di Fass yëpp su ma Abass Ndoye ma Tafa Gueye ma nga sama gars yi ma ne am seen bi li li dara nga bëre ak Serigne bëre bi nga bëre ak Serigne Franc arbitre def na bëre bëre bi nga agressé ko. mais Franc champion la lan moo tax nga nga bëre noonu te bu njëkk da ko daan xaar mu ñëw. non Franc champion la mbër la mbër kaamil la Franc day bëre na mais sant ñëpp daal sant ñëpp sant ñëpp sant suñu borom baax nag di la nuyu baax yow di la sant.